wa man tabi'ahum ihsaanin ila yawmi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu nuyub lislaam te assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di dellusiwaat ginnaaw bi ñu sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala di dellusiwaat ci eh, téere bi ñuy ànd ak yéen muy riyaadu saalihiin di lu baax itam xaw a gëj gi ñu war a tàmbalee tey ci buntu joxe waaye di joxe itam la nga gën a bëgg buntu joxe ci li nga gën a bëgg gën caa rafet itam sunu boroom subhanahu wa dafa wax ne lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuxibuun du ngeen am ngërëm ak àjjana lu dul ne dangeen di dimbalee wala di joxe ci seen alal yi nga xam ne dangeen ko koo bëgg waxuñu nga joxe lépp waaye ngay xool ci yi nga xam ne ci sa alal yi ci moom nga gën a bëgg nga di ca jël di ca joxe ngir jëmm yàlla su borom subhanahu wa taala loolu bokk na ci li gën a mën a may nit ki àjjana bokk na itam ci li ko gën a mën a may ngërëmul yàlla sunu borom subhanahu wa taala sunu borom subhanahu wa wax ne yaa ayuha alladina amanu anfiqu min tayibaati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ardi wala tayammamu alxabiisa minhu tunfiquun yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla sunu borom subhanahu wa taala dee leen dundale seen alal yi nga xam ne da ngeen yéen a ko fàggu mu doon lu teey doon lu lew dee leen ci dundale dee leen xool la ca gën a baax wala la ca gën a diggu doomu ngeen cay dundale di ca dimbalee ak li nga xam ne itam suñu borom subhanahu wa taala génneel na leen ko ci suuf si muy xeet mbay yi ngeen di bay ci suuf si ak lu mën a doon rek bu ngeen cay génnee asaka wala ngeen cay saraxe wala ngeen cay dimbalee dee leen xool la ca gën wala la ca gën a diggu doomu waaye bu leen jël la ca yamaay mooy wala tey moomul xabiisa la nga xam ne moo ca gën a yées nga xam ne ku leen ci doon fay bor sax du ngeen ko nangu bu leen jël loola di ko di ko di ca dimbali kenn wala di ca saraxe bu ngeen dee saraxe daal bu ngeen mënta jël la gën a baax xool leen la diggu doomu na naka noonu asaka itam noonu bu dee ci sariya moom néewuñu ne eh, li gën a baax ngay war a génnee far waaye bu fekkente mën ngaa génnee ca la diggu doomu baax na waaye la yamaay moom sañoy si ko kon ki nit ki buy dimbalee te bëgg ka muy dimbali la mu koy dimbalee am njariñ nay xool moom la mu bëggal boppam mu di ko defal keneen wala muy xool la gën la diggu doomu mu di ko defal waaye bu mu jël la nga xam ne dafa yées nga xam ne ku ko doon may sax mën na koo bañ a jël mu koy saraxe wala mu koy dimbalee keneen kon ñaari aay yooyu rek la indi ci bunt bi bunt bi itam guddul benn xaddis rek la ci indi muy xaddisu abu talxa anas moo ko nettali mu ne abu talha dafa doonoon koo xam ne mën nañoo wax ne moo ëppale woon tool yi nga xam ne dañoo am tàndarma ci madina waaye daf ci amoon tool boo xam ne moom la gënoon a bëgg ci tool yi muy bu ñuy wax bay raxaa mu nekkoon ci wetu jumaa ji jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu taala alayhi wa sallam daan dugg ci tool boobu daan fa jëfandikoo maanaam lu ci mel ne daan naan ndox fekk dafa amoon ndox mu neex mu ne woon foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan dugg léeg-léeg anas nee na bi nga xamee ne sunu borom subhaanahu wa taala wàccee na aaya bii di lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun abu talha dafa ñëw ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa ne ko yaa rasulallah inna allaha taala sunu boroom dafa wàcce ci yow aay buy wax lan tanaalul birra maanaam du ngeen am ngërëm ak àjjana lu dul ne da ngeen a dundale dangeen a saraxe ci li nga xamee ne dangeen koo bëgg ne ko man nag am naa suuf soo xam ne wala tool boo xam ne moom laa gën a bëgg ci sama alal yi muy bay raxaa tool boobu daal xamal ne def naa ko sarax ngir jëmmi yàlla sunu borom subhanahu wa taala te it yaakaar naa itam sunu borom subhanahu wa taala fay ma ci ne ko nag teg naa ko sa loxo xoolal fu la sunu borom subhanahu wa taala wan rek nga dugal ko foofa. bi mu defee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne eskay eskay eskay loolu de alal ju bénéfice la maanaam alal ju gànjaru la alal ju tonawu la. maanaam xamal ko daal jëf ji nga def rëy na lool ne ko dégg naa itam li nga wax te mooy li nga ne xoolal fu la yàlla wan rek nga def ko foofu daan ne ko waaye man li ma gis mooy an tajalaha fil aqrabin maanaam nga xool say mbokk say jege ñaale ku ci loru nga séddale leen ko abu talha ne ko insha noonu laay def daal di jël loola defe ko na ko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxee te mooy xool ay mbokkam ak ay doomi baayam ñi nga xam ne loru nañ ci mu séddale leen ko kon hadis bi eh, mën nañ cee déggee yu bari waaye ñaari mbir yi ci mën a gën a dégge mooy nit ki buy joxe joxe ca la mu gën a bëgg moo ëpp tiyaaba waaye dinañ ci déggee itam li wolof di wax bay ci sa wewu tànk bala ngaa joxe xoolal yow ci sa bopp ba xam yow yitte wóngu ko bu fekkente ne yittewoo woo ko nga xool yow ñi ngay dundal ba xam am na ñu ko ci yittewoo wala déet bu dee gisoo kenn ku ko ci yittewoo nga xool say doomi baay say mbokk say jege nga jox leen ko bu dee kenn lorowu ci nag nga door ko mën a génnee kon xaddis boobu mu naa alayhi la foofu la bunt bi itam foofu la su ko defee ñu teg ci buntu digal say ñoñ ak say doom yi nga xam ne am nañu ràññee ak képp koo xam ne rek yaa ko njaboote loo leen di diggal mooy ñuy topp yàlla sunu boroom subhanahu wa taala ak di daw ay tereem waaye nga leen di yar itam waaye di leen tere itam ñuy toggoo loo xam ne ak mooy yàlla rek la leen di jural loolu lu war la ci képp koo xam ne njaboote nga loola tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom subhanahu wa taala digal ko moom it ne ko digalal sa njaboot ñuy julli waamur ahlaka bi solaat ba tey itam mu waxaat yonente bi sa alayhi wa ne ko waxal jullit ñi ñoom ñi nga xam ne gëm nañu yàlla sunu borom subhanahu wa nañuy fegal seen bopp sawara waaye di ko fegal itam seeni ñoñ te mooy ñi ma wax léegi rek sa doom wala képp koo xam ne rek yaa ko njaboote يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا jëleenañ ci abi hurayra radiallahu taala anhu mu ne dafa am bis xasan di doomi yi di sët ci yonente bi salallahu taala alayhi wa dafa am bis mu fekk tàndarma joo xam ne dañ koo tegoon mu doon ab sarax mu ñëw jël ci benn doom bëgg koo seex yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam ne ko cam cam cam sànnil sànni sànni xanaa xamoo ne lii sarax la te ñun duñu lekk sarax amma alimta anna la nakulu sadaqa ñun duñu lekk sarax xanaa xamoo ne ñun duñu lekk sarax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawu lekk sarax waaye daana jël addiya waaye mi ngi koy jàngal itam ah, jël loo xam ne amoo ca ndigal maanaam bañ a jël loo xam ne amoo ca ndigal mi ngi koy tere jël loo xam ne amoo ca ndigal xaddis boobu ba tey muttafaqun alayhi la kon képp koo xam ne njabooti na rek bu muy bàyyi doomam muy xoolu ko neex muy jël wala muy xoolu ko neex muy lekk na koy na koy toppatoo bu baax a baax xool lu mu war a jël ak lu mu warut a jël ndax ci mel noonu rek lañuy ñuy tàmmee jël loo moomul hmm, wallahu alam ba tey jëlee nañ ci abi xafsa omar ibn abi salama mu doonoon doomu doomu jiit la ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ummu salama moo ko jur ummu salama yonent bi sallallahu moo ko yoroon bi mu fay ñëw nag dafa indaale doom ju tudd Omar Omar moomu mooy nettali mu ne jamono yi ma nekkee xale mas na maa toog ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa di lekk ci benn ndab nee na bi ñu lekk nag man maa ngi jël sama loxo bi rek fu ne ma cuccaaj fu ne ma fu ne ma coppati fa nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa eh, ngóor si sàmmillah wakul bi yaminika wakul mi yalik ne ko eh yow ngóor si ba mu xool ko mu ne ko booy lekk del wax bismillah te ngay lekk sa loxob ndeyjoor te ngay yam sa kanam Omar nee na ba ko ko yonent bi sallallahu taala wa sallam waxee ba léegi nee na loolu moo mujj di aw lekkiinam ba nim nekkee mag noonu lay lekkee nga xam ne du du def lu mu soxla rek dem jëli ko balaa lekk wax bismillah di lekkee loxo nday jooram waaye di yam itam ci kanamam di yam itam ci kanamam kon gis nga wax gog ko yonent bi sallallahu alayhi waxoon ca ba muy nekk ndaw topp na ko ba mu nekkee mag mënu koo bàyyi noonu noonu moo mujjoon doon lekkin moo tax mu wax ne fama zalat tilka tiamati mi ngoog kon gone di ko teel a yar itam ci buy lekk teggin ya mu war a am am na solo lool dana ko dimbali bu demee ba nekk mag wallahu aalam ba tey nañ ci omar ibnu omar radiallahu taala anhu abdullah ibnu omar radiallahu taala anhuma di doomar di doomu omar ibnu xataab mu ne dégg na ci yonente bi sallallahu taala muy wax ne kullukum raain wa kullukum masulun an an raiyati képp ci yéen ab sàmm la teyit bu ëllëgee dees na ko laaj la mu doon sàmm mu ne imaam bi jiite nit ñi ab sàmm la bu ëllëgee dees na ko laaj la mu doon sàmm ak ñamu jiite woon la waroon seen diggante ndax mataloon na ko naka noonu góor gi itam ab sàmm la ci ñoñam ak njabootam bu ëllëgee dees na ko laaj nan la doxalee woon digganteem ak ñoom naka noonu jigéen moom it ab sàmm la ci kër boroom këram bu ëllëgee dees na ko laaj moom it nan la doxalee woon ca kër boroom këram ak nan la ko doon sàmmee naka noonu am mbindaan itam ab sàmm la ci kër sangam kër ki muy liggéeyal bu dee jamonoy jaam di am itam noonu jaam bi itam dees na ko laaj nan la doon liggéeyee ci kër boroom këram kër kër sangam bokk naka noonu bu dul ab jaam itam képp koo xam ne dañ laa jël ngay liggéey rek liggéeyu kër bu ëllëgee yow tamit dana na laaj ndax sàmmoon nga ca àq ya ca war ak ndax doon nga ca bàyyi xel yàlla suñu boroom subhaanahu wa moo tax mu nekkoon fa kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la tey bu ëllëgee des na ko laaj la mu doon sàmm koo xam ne nag yiliful kenn moom bu ëllëgee boppam rek lañ koy laaj boppam rek lañ koy laaj waaye kenn ku nekk ci ñun rek ab sàmm la te bu ëllëgee suñu borom subhanahu dina ko laaj lan lam doon sàmm nan la ko doxalee hadis boobu muttafaqun alayhi la ba tey jëlee nañ ci ibnu Shuayb an abihi mu jële ci maamam Omar moo jële ci baayam baayam jële ci maamam mu ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na na ngeen digal seeni doom julli waxtu woo xamee ne am nañ juróom-ñaari at buñ demee ba am juróom-ñaari at na ngeen leen di digal julli waaye buñ demee ba am fukki at nag bu ngeen leen digalee julli nanguwuñoo julli na ngeen leen duma ndax julli moo gën a màgg ci xeeti jaam yàlla yépp daan bu ngeen demee nag bañ bañ buñ demee ba am fukki at itam eh, na ngeen ni teqale seenub tëddukaay seenum tëddukaay na ngeen leen di teqale bu fekkente ne am nga moyens yi moo gën bu fekkente ne amoo moyens yi nag bu dee ñaari góor nañuy bokk lal ñaari jigéen di bokk lal te it bu ñuy tëdd itam ñu bañ a def yaramu neen maanaam na am lu dox seen diggante ba nga xam ne seeni yaram du laalante loolu bu amee rek baax na bu ñu bokkee benn lal itam te seen yaram te seen yaram yi laalante wul rek baax na bu fekkente am nga moyen nag kenn ku nekk n wutal ko néegam moom moo gën waaye boo ko amul nag mën nañoo bokk néeg waaye buñ bokk ay lal góor ñi nañ bokk lal jigéen ñi bokk lal jigéen ñi sax li gën nag moom ñu bañ a bokk góor ñi ab néeg ñu bañ a bokk góor ñi ab néeg waaye bu la ko say moye mayul nag bu leen boolee ci benn lal bu buñ xasee am fukki at na jigéen ñi tëdd na le góor ña tëdd na le te kenn ku nekk buy tëdd mu sol yére bañ a def yaramu neen wallahu ahlam ba tey jële nañ ci abi suraya radiallahu taala anhu mu ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na na xamal xale yi nan lañuy ñuy jullee buñ demee ba am juróom-ñaari at buñ demee ba am juróom at na leen di xamal nan lañuy ñuy jullee buñ demee ba am fukki at nag bu ngeen leen dee julliloo ñu bañ na ngeen leen cay duma ndax ñu koy def ndax julli moo gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yépp kon su ko defee mbokk yi bunt boobu foofu la yam ah, muy xamle rek sàmm gi nga xam ne moom nga war a sàmm képp koo xam ne njaboote nga ko rawatina say doom rawatina ñi nga xam ne dem nañ ba am ak ràññee kon na kenn ku nekk gën a góorgóorlu rek ci boppam waaye góor góorlu itam ci ak njabootam su ko defee kon ñu ngi leen di jox dig daje ci bunt bi ci topp te mooy àqi dëkkandoo di loo xam ne lu rey la te it lu mat sàmm la yonent bi sallallahu alayhi wa nee na jibril daawul dañ eh, di ko dénk dëkkandoo bam yaakaar ne moom sax bu faatoo xëy na dëkkandoo daf koy donn ngir rek am solo goo xam ne am solo am na ko solo moom dëkkandoo kon bunt boobu lañu war a tàmbaliwaat incha allah ci jataay bi ñuy ñëwaat di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala fekk la ñëw jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu